faatumata futa tampi sama laa biir mom di ñew ci mom rek la koy concentrer wu am na ko xam ko xamantene ne depuis bu judo ba démb wax na ma lepp ci fam bi ba su ma defee live ci fam bi fam bi dootul genn wax dootul wax ben man ma lan ko wax dootul ŋaan et lañ xam ci moom lañ xam ci daam lañ xam ci daam lañ xam ci Mame Mbaye Niang lañ xam ci Mame Mbaye Niang lañ xam sax ci Macky Sall ak ci ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp xam nañ la te li ci gën a yéeme mooy ça m'a fait même rire mooy ñi gën a sonal Sonko ñoom ñoo gën a nekk ci ay pétrin ñoom ñoo gën a def ay tooxi dooni ça fait rire ça fait vraiment rire ñu dogoo un peu ci mbiru Dame Dieng Dame Dieng en 2000 dafa biral benn fii fii bi mu ngi tudd Mame Maty Fall mais fii bi du fii bu bon fii bu baax la jógee ci famille bu bien di jàng sees la dëkk mais daam da ko nax xam nga nit bu la mag ëpp la expérience ëpp la xel ñëw di la fen di la nax topp la nga bañ ba sonn mu topp la topp la topp la ba am na nu muy demee sa da lay sëriñtu nag xale bi tëddee xale bi biiral xale bi mu biiralee xale bi ñu am doom bu góor xale bi mu ngi juddu hôpital régional en 2000 hôpital bu Thiès daa am jeneen tuddee ko sa meilleur ami sa meilleur ami mu ngi tudd Ebrahim Rasen Kan Ibu Ibu Rasen Pas papa Rasen lo tudd ah ñu da clever reses Ibu mom leg mu ngi Italie sax port la nekkoon doon liggéey ya, may bi la dëkk bi commencé ya, jafé mu dem italy ya. mais xaritu dam la bu baax parce dam toujours mu ngi won ke ñem Ibu Kan ah, bi amé, dam, daam famille xalé bi ko pression mu takk xale bi mais takk suuf la ko takk te bi mu koy takk ay nit la fekk ci benn grand place Thiès mu fay leen ñu dem ñaanal ko xale bi donc nijaayam ñaaniwul baayam ñaaniwul frère ñaaniwul kenn ñaaniwul amu ñu bëri dañuy fone xale bi sax Ibrahima Dieng góor ji petit frère góor jigéen boobu di xeesal la ko tuddee non tuddee ko Ibrahima Dieng petit frère am Ibou Racine Kane la ko tuddee ah, bi loolu amee mu toppatoo xale naan ci après samay investigation day toppatoo fii bi quoi fii bi dara du manque wax dëgg fa yàlla en 2002 mu wax xale bi na bàyyi jàng mu ñëw Dakar mu loose ko Dakar en ce moment nii mu ngi ko loose Fann résidence euh, am na ñaari doom danaa ñëw ci loolu ñaari doom yu góor mais day dóor Fambe rek day dóor rek day dóor bi nii may wax ak yéen da fi mu ko luwel daa musul tardé paiement wax dëgg fa yaa boo koy waxal da nga koy waxal xam ci moom nga koy waxal dundu fam bi du manqué mais dina toog weer du ñëw fanaani foofu doomam yi dañ koy laaj duñ ko gis te buy fof da fay fen jabaram bem tak takk Kaolack danaa ñëw ci jabar bobu aussi ci wa da ko nan damay dem reportage wala damay dem voyage wala patate pata fek mu ngi dem ci jabaram parce que kooku jabaram la da ko tak même bu fekke sey bi siwul na lan wax kañ la mu jey fanaan jour mu fa mujjee fanaan ban kalson la sol ak lan mo fa xaw Dam laħew supercampus u sedin nġu għahdena. Buches. Voilà, xam nga xala bi tamit mu ngi dëkk Grand Standing quoi je pense que fa la dëkk après samay investigation uh, ah. ebukan bo ya, ya am fama kansa lo tudo lo komsa mola e ya, son d'origine da galoyo galoyo fo prate man so man bo krak no fanen dazam dom be mo amang mom me todo yakuba sen dam dagala wolu dag kon xam nga dam li ngay wax ci sonko naan jabaram la sol da nga wax loo ko temps law ay dóol la même temps ñu ngi yor ay dossier yu dul jeex ci moom ay vidéo ay sonore ay vocal ay lu ne la ñu yor ci moom mais moom beneen dossier la dina ñëw ci moom daam euh, da nga am doom bu tudd Caps Dieng am nga dom bu do mam Cheikh Dieng ak dom to do Asnar Dieng Asnar yang ko tudde sa e jabar mais Asnar bo nga xam mo jor sa papa boni mu sa am yeb dalena leen lolou ka wax kaw ko xam ni jigen lay dundee te pourtant do marabu la 52000 deux mille femmes fasa na ci beral nga am dom mu fasal te ba ngay takk doomam da ngaa na ñasan nga yow doo ñasan doo tijaan doo xaadr doo doo doo jullit doo chrétien yow doomi satan satan ngay jaamu satan nga gëm parce que xaalis nga gëm xaalis mais xaalis bi ngay am ni nga koy amee baaxul sa way te pourtant yaa ngi ciy jox sa yaay muy lekk ak say doom ñuy lekk dëtt nga leen di jox il faut que tu arrêtes il faut que nga arrêté ay arrêté force force nag damal ci serigne bu la neex fane ya nga daw ci sa borom way rek dégg naa quoi dinaa joxe sa auto bi ngay dawal ak numéro plaque yoof océan nga dekk en ce moment ci booru prédou bi xam nañ lépp waxuma sa kër bi nek salé dé sa kër fi nga yewu dem fi nga yeewoo yoof océan la yàggul dara sa jabar da nga danga ko dóor ba mu daw génn ca mbedd mi waa koñ bi yëpp génn am na vidéo sax am na ku filmé muy yuuxu mais loolu yëpp dañuy xaar duñ ko publier ci yow la dépendre rek pourtant xam nga ma dam amoo woon pour attaquer ma xam nga ma bu baax te yow xam nga man ce que je suis capable xam nga ko dam bi ma lay xam ak léegi ëpp na ëpp na 24 ans wala 22 ans wala 23 ans bi ñuy xamante maa yow ak léegi xaw ma fen Samira Niass la femme du boss noonu lay woowee ya boppam quoi Samira mooy attelu jabaru Dame Dieng politicien maître

tam jeng ñu présenté ko fii bi da ko gis rek amul jàmm xam nga Sénégal ñi gën a ñuul dañoo am complexe ñu gën a xees quoi c'est-à-dire ñi gën a ñuul ñoom seen rêve yëpp mooy am jigéen bu xees fekk xees amul solo li am solo mooy li nekk ci xolu nit ki ak li nekk ci xelu nit ki quoi biñ ko ko présenté e, moo commencé topp xale bi da ko may xaalis da ko defal lu ne mu ne na xale bi tas mu takk ko noonu la xale bi divorcé mu takk ko dam kuy dóore moo mën kuy saaga dam force dangay reculer force Sonko danga koy bay man maa la ko wax force danga koy bay naam ne mooy créer leeral Idrissa Seck la doon jàppale ci campagne ci politique quoi après Idrissa jox ko xaalis mais ils ont eu des problèmes parce que ana boobu daam dafa tek del Idrissa Seck Idrissa Seck découvrir affaire bobu mere ko arrêté nañ ko fi sax période boobu noonu ab Idrissa Seck moo ko génne mu am problème mu xaalis man sama bob mayor naa ko xaalis man mom lolou duko ko wayti may ko xaliss may ko ordinateur après ñu présenté ko benn way bu bari xaalis mais nga akalo quoi Seyni am la tuddu c'est un milliardaire Seyni am boobu Gabon la nekk businessman la dafa bari xaay xartu Macky Sall ak Aliou Sall bu baax mais Farba Ngom mo len présenter présenté kooku Macky Sall ak Aliou Sall parce que Farba Ngom sous raison bi ay Gabon ay ay ay ay Zaïre ay côté boobu noonu dafa dafa duggante ak Haalpulaar parce que foofu Haalpulaar ñoo fa bari ñoo fa njëkk dem d'ailleurs samay nijaay ñoo njëkk a tukki Congo jaay jama ci Haalpulaar yi loolu Haalpulaar yëpp fa dem yëpp ñoo leen doon dalal foofu ñom yaroba sax non lañ ñowé congo ci jamono bobu non lañ amé xaliss donc seeni caam bobu nonu mo renforcer wa dam jox ko xaliss bu bari parce que gaay xaliss xaalis am du set du set quoi donc dañ koy bëgg raxas dañ koy bëgg raxas quoi Ismaël <laughs> Ba beneen mbir donc dam bul na kenn xamula ñi ñi xam nañ la bu baaxa baaxa baax mais man bo duggul won ci sama mbeur lay yeb sénégalais doñ ko xam bo bayiwul Ousmane Sonko li yeb sénégalais duñ ko xam Ousmane Sonko il faut nga bayiko Sénégal politiciens ni ñuy politiquer dafa salt depuis alternance bi Abdoulaye ci pouvoir bu ay kañaar rek la ñu àndel te ñu ñoo fi nekk ba léegi ñoo xam amuñu benn valeur ñoo xam bi Sénégal di baax li ñu sëkk ñoom mooy ñu xewle ñoom ñu ñëw ñaan ñu ñu may leen te ñooñu ñoo ñuy jiite mais loolu yëpp ñu fët la parce que ñun aussi ñoo amul fula parce que ñu si bëri perdre nañ seen ngor bu élection jotee ñu may la fii benn tusi may la fii cinq mille may la fii cinquante mille may la fii nga votal leen nga jaay sa carte de vote après xaalis bi jeex après ñoom ñu gouverner la pendant des années ci misère dëkk bi di taa ngay kaas policiers yi di la dóor ngay kaas amoo looy kaas danga koo mérité sa liberté nga jëndee cinq mille deux mille cinquante mille cent mille wala un million lu ñu la def baax na il faut politiciens yi changer ni ñuy politiquer au Sénégal du noonu la ñuy politiquer seen politique lépp ay xaayu sutura la ay toog ci télé yi ci rajo yi ci média yi di attaqué benn net da wax ca net Ousmane sonkoo ni Ousmane Sonko naa kii nii kii naa patati patati di dévoiler ay affaires yoo xamante ni ñun lañ yor si ñoom moo gën a garaaw mais bu ngeen ci plateau yi mais parlez nous du développement wax lañu ci développement wax leen ñu comment régler le problème de l'insécurité au Sénégal Vous savez comment régler le problème hein, des des des des des des étudiants Vous savez comment créer de l'emploi pour les jeunes Vous savez comment améliorer les plateaux ah comment améliorer la wax leen ñu ci développement vous leen ci ci ci technologie vous leen ci ci entrepreneuriat wax leen ci parlez-nous de ça parlez jox de tout yakar. quand vous faites comme ngeen ñëw plateau yi di wax ci lolo espoir da nous jeunesse espoir mais vous nous parlez de ma voiture ma femme mon mon lit avant may nez, mis am mes diplômes, mais diplôme fait laa jàngee fii vous nous vous de de sol de mais allez vous faire foutre enough is enough dafa wax la ñu xam-xam ngeen ci université yi ngeen jàngee diplôme am wala am doctorat wala mais parlez-nous de ce que vous avez appris dans les universités parlez-nous de ça yàq der rek attaque rek fen rek pour lan xoolal élection yi passé premier ministre Justin Trudeau deux ans dese woon na ci mandat mais pour renouveler confiance avec les Canadiens xam nga lu mu def dafa déclencher ay élections te bu ko neexoon mu toog ba deux ans am jeex mu dem yoonam mais non dafa on va déclencher des élections ñu allons est-ce que Canadiens yi ñu ngi koy ba mais dañ koy éliraat donc là dañ ko gën a confiance là dañoo approuvé façon bu muy liggéeyee ne baax na mais xoolal loolu rek loolu du mës a am Afrique sa waay parce que suñu dirigeants yi jubuñu Macky moom ministre mi directeur d' agence yi ak politicien yi ko wër commissaire de police yi magistrat yi ñoom ñëpp respecté wuñ ko député yi respecté wuñ ko parce que buñ ko respecté woon scandale yi fi am yëpp du am sénégalais est-ce que jóg ngeen manifester devant l'Assemblée nationale pour xeex affaire suñu passeport diplomatique yi nga xamante ni député yi jël nañ ko jaay ko est-ce que procureur convoqué na leen mais non quand Fouta Tampaani euh, euh, Farmata Ndiaye bi mu bi bi ko état bi di bu nu xatal fii ba ba ba ba ba ba mu porte benn benn plainte am aboutir mais léegi bokk na ci mouvement présidentiel bokk na ci ci waa APR mu ku mu porte plainte suba dëgg jël sa la mais da c'est ruslu sa fa ñaaw ah, même agent yi gars yi di manipuler nii ay directeur dëgg ay ay ñeneen ak ñeneen ak ñeneen commissaires yi ak inspecteurs yi ak ñiy def liggéey boobu yëpp ñi ñiñ di mane xanaa war ngeen rus du ngeen ay nit amul benn benn rusukaay bu toll ne wala valeur bu nekk ci seen biir ru amul saa n'existe pas parce que man am na loo xam ne bu ma ko net bëgg a defloo je démissionne te lépp teg ko ci yàlla xam ne allahu moo yor sama vie am na loo xam nit du ma ko defloo du ma ko nangu ah ma waxaguma li ma xam ci moom lëpp sax daam femme bi du ma tudd turam mais ma mun a la tudd ma tudd sant bi quoi xam kan la dafa nekk France nekk France une très belle fille daam xale bu rafet quoi euh, noonu la bëggee puuxa nag c'est un mu doxaan xale bi la plupart sur Facebook la lay doxaan la première chose bu mu lay wax je suis le président directeur général de Leral quoi loolu la lay wax quoi te xam nga Sénégal aussi xale yu jigéen yu bëri tamit mooy loolu quoi mm, xaalis lañ gëm solu lañ gëm xam nga wone wu ah màggal validé tabaski validé jàppal bàyyil yow nga sol. Uh, perruque bu jar cinq cent mille wala trois cent mille sol yëre buy jar trois cent quatre cent mille sol dal buy jar cent mille sol sac bu jar deux cent yore sac bu jar deux cent mille uh, di xeeñ parfum wu cinquante mille takk ay or uh, bëgg a dawal oto bëgg a dund vie boo xamante ne amoo te liggéeyoo liggéeyoo quoi yow liggéeyoo ba nga am appartement liggéeyoo ay góor ñëw di la tëddee di la jox xaalis loolu la te fula bés bu fii demee dégg bu fii découvrir ne que ñoom li ñu mën moo ëpp li góor ñu mën rek danañ jóg dem ñafe quoi jour boobu la leen góor ñi di respecté xam nga Gabriel Kane d'accord ma nu muy waxee mais genre fi yooyu lay waxal quoi parce que la plupart des góor surtout góoru sénégalais dañoo am complexe jigéen bu indépendante financièrement boo indépendante financièrement ah nga indépendant am soxlawoo dara ci kenn te loolu ñafe rek la laaj góor yu bëri dañ lay jox respect dañ lay jox cër boo xoolee ñiy divorce ñu si bëri mooy ñi nga xamante ni indépendance indépendance indépendance financièrement quoi. lépp ci seen góor lañ ko teg moo tax la plupart waa mun sens góor boobu du la respecté ko parce que ordonnance bàyyi sax ak sa ordonnance su ndey moom moo koy jënd. waa ngeen commencé changer bos bu ngeen commencé changer gëm seen bopp yéenay diriger mondo bi yàlla jigéen la yow bon ci waxin quoi parce que jigéen la gan a fonk lépp la leen jox yéen a xamul nu ngeen koy exploité léegi la rek mais ay jamono ci ginnaaw des a d'années ci ginnaaw jigéen ñi ñoo doon nekk ren ñoom ñoo doon diriger monde bi mais après góor ñu complot xeex leen toroxal len completement Il faut ngeen reprendre seen pouvoir mais loolu ci yéen la dépendre amul secret dem jàng la am say diplôme am liggéey bu baax libre amul secret yow fajar la dem jaay wala ndox loolu kazala, nga am sa bonafis, gérer sa bopp parce lolo gorni di def gorni ñi loolu rek la ñuy def defuñu leneen léegi nag boo amee jëkkër bu am xaalis nga xam ne loolu bénéfice la rek Memphis. Masali, comme moom retiré plantam du ñu dugg ci ay mbiram parce que aussi am na maam ñaan mu donc aussi amuñu pour wax ci moom quoi mais qu'il sache que du référence Sénégal du fa référence quoi du fa référence kenn bëggu la kenn respecté wu la CSS US xaw ma nga bëgg a fa nekkee maire ma xaru doo fa gañ a dara xanaa ñooñu ñu dëkk foofu wéruñu xanaa dañoo dof tooxi doona yi nga def oh <laughs> laajal sa xarit Aliou Ndiaye Aliou nay laaj ko kan mooy Ousmane Ba après eh, dama e la wax sax Grand Yoff lu fa xew dama lay bàyyi ci dama nga ko ba après on va gérer ça eh, sa ex jabar dañoo koy bàyyi ci li dama nga ko ya kan mo Usman Ba laaj ko Usman Ba après nag boo dëgëree bopp ñu ñu ñu avancer rek ñu wax quoi léegi nag boo bàyyee mu sedd ñu bàyyi mu sedd amul problème mais si kaw Ousmane Diagne be ne nga réagir baaxul du noonu la ñu réagir quoi ku moom buumu xar mi rek nga bàyyi ku moom xar nga bàyyi buum bi comprendre donc voilà ñuy remercier. Maître Cheikh Khoureyssi je Maître Cheikh pas. Ba jeune si bëri dernièrement je ne sais pas. mais dans les années fin 80, début 90, vingt dix fresh la opposition c'était vraiment le confident de Ablaye journal Sopi mon moo rédacteur en chef bi moo xam il a une très belle plume D'ailleurs, c'est le père de Khalifa, rappeur. Euh, ni muy taxaw activiste yi ak ñu bëri ñu neew doole soxla avocat dafa yéeme ku baax la il faut ñu ñu su ko njukkal il faut ñu remercier ko j'ai aussi publié excusez-moi numéro ci sama page non ku ci mën a def dara rek nga def benn arrangement wala benn wave léegi may wax nag yow oh, nu ma da wax loo moo ko man maa jël samay initiative bu bopp rek bu ah, loolu weesoo oh, aussi il faut patriote yi xam que politique dafa am lu bëri lu mu laaj première chose bi mu laaj wala première chose yi mu laaj ay plateforme de communication da cee bokk te loolu moom moo manqué Pastef amuñu fu ñu waxe amuñu télé amuñu rajo amuñu amuñu ay ay site d'actualité amuñu amuñu loolu quoi réseau yi rek la ñu am c'est vrai que yi am na doole mais Ousmane Ba bind ci paasam ak mu publier sur Seneweb wala sur sur luñu wax sur euh, sur sur 2 tv wala Sen TV wala quelque part du bok parce que fii moy gëna officiel Facebook n'a kum neex wax loola neex comprendre donc il faut des plateformes yu dëgër yo xamanteni ni nit ñi duñu xam ne yana ko mom dana am fu gën do waxee quoi ci biir lolu ma am benn idée boo xamante ne mun na régler problème boobu mais en même temps mun na empêcher ay sët di wax ci Sonko lu amul am na benn système bu ñu mën a construire boo xamante ne amul benn sët buy bindati ay fen ci Sonko amul mais dafa laaj un peu de moyen quoi dafa laaj tuuti xaalis donc loolu aussi man dinaa jël samay initiative daf benn levée de fonds boo xamante ni samay nit dinaa leen laaj ñu participer si comme ça ñu mën a construire loolu préparer élection yi ñu jëm ku ci bëgg a participer tamit da mënuma dee ci su ma waxee lépp gaa yi dañuy xam te dafa nekk loo xam dafa war a rester ah, jot na TV am na mais ba léegi bokkul parce que jot na TV ñu xam nañ ni Pastef la donc voilà loo fa wax rek dañ naa ah waaw pas ça fa ko moom mais ay yeneen mbir la munu ma dugg ci ci ci lepp quoi parce que suma ma ci lepp gars da ñuy jitu ci loolu dañuy xam quoi mais bu moye demee ba taxaw ma ñu créé ko vous verrez vous verrez avec vos propres yeux bu boba ba mu taxawé ya nak après ñi participer mun ya la ñaan envoyer information wax leen né la amé né lañ ko defee lii lañ def fi li lañ ci duggal fi li lañ ci fay fi li yëg lii lépp leer man sama mbir lepp leer parce que ci combat bi ma nek mënumaa dugg ci lu lëndëm mënumaa dugg dara loo xamante ne da yàq sama dara wala da mënul nekk quoi donc si suis obligé lépp di jub lépp di jub quoi te alhamdulilah sax yàlla dafa maa def beneen nit boo xamante ne am na nu defee sax moom yàlla ci boppam ñoo ko gën a jub bon waxeen la quoi fatumata njay tampe video bo muy dawal oto be ke mu àndal doomu nen ne ko may la quoi nen ne ko mais dans les années 90 aux RTS la nekkoon quoi ñëpp xam nañ ko on nous a donné toutes les informations jox nañ ñu lépp fu mu dëkkoon ku mu dëkkal fu mu jaar fu mu juddoo tur papam tur yaayam doom yi lépp lépp bor yi problemi ku muy nekkal ku koy doxaan tellement keneen gars yu koy jéem a doxaan kër bi ñuy wax fu mu nekk oto yi bor yi paiement yi xaalis bi voyage bu muy préparé ni pour dem France relation Alioune ak ñoom ñëpp quoi lépp lépp lépp lépp lépp lépp am nañ ko quoi mais loolu live spécial lañ ci def moom rek lañ ci wax duñ ci wax leneen comme ça Sénégal comprendre parce que munuñu ku jóg attaqué état bi état la sénégalais yu jóg jàppale kaasal la énergie bi wax li protéger la tout ça ba nga am tur après nga monétiser boobu popularité loolu mënatul nekk mënatuñu on peut plus faire ça mënatul nekk quoi donc def leen attention ñi ngeen défendre ak ñi ngeen am na ñoo xamante ni yéen a tax sañu siw yéen leen siwal ko importance bi ñu am tey yéen leen ko jox te tey kooku grâce à toi yow mi ko soutenir liggéey na ay centaine de millions sa kaw yow tu es toujours là amoo sa loo ndekkee suba loolu dafa war a jeex loolu day jeex ko loolu day jeex quoi dafa war a affaire Dame Dieng bi comme la ma leen cooxoon rek en ce moment moom rek laay déglu quoi moom laay seetaan même s'il veut il peut me contacter directement bu bëggee sama numéro sax mun naa ko jox quoi aw ma problème parce que man mënoo ma pirater quoi mënoo bu sa sonn ma pirata booma booma boo ko jéemee ma pirata leeral ma yàq leeral la ya ma même su ma essayé même lieu mun na waxtaan ono mais man dama xaw bis tuuti moo tax pas me permettre yàgg ci ci ci ci ci live bi quoi maa leen ñaanal di leen remercier le combat continue ñoom pouvoir bi bu ñu respecté rek ñu respecté leen bu ñu respecté wul rek ñu dina tàng trop down